fas yéene aar yoonu murit parce que yoon yi suñuy maam ñoo ko ñoo ko sàmm ñoo ko sos sàmm ko moom egsi fii musta gàkk Sëriñ Tuubaa du moroom kenn lu ñu nekk ba fii nag ba yoon yu mel ni mu war a mel ay gone yu ndaw jóg ne dañ koy gàkkal ci ab xamade ko réewle li ko sëñ Ablaye euh, Mamour waxee léegi bu dee xam-xam la ñu mën a jënd maamam ci xam-xam jàngal maamam ak maamam ba ñu leen jàngal ñu leen ëpp xam-xame ci ne j'en veux pour preuve sëñ Xaadim rek docteur la en un exemple te te te ndaw la ñu ko jàngal tubaab ba mu ba mu ba li mu am ñu ngi fi bu ñu wax problème mu xam-xam réew ñun dañuñu noo muus stratégie ñuy utiliser ak subterfuge yëpp pour di ñu attaquer di matt di wal xam nañu ko dafa ñuy xeeñ man ko bañ Serigne Touba bu ma rombee xetam bu ma gisee kanam gi xetam damay xeeñ kii dafa bañ Serigne Touba ñu def lu ñu xamul on ñu ngi si biir net bi ñu ngi si média yi guddeeg bëccëg suba ngoon amul lenn lenn benn luñ a jaaree ba defee ne li ñuy def seen ñu ngi seen stratégie te xamuñu ko léegi ku ñëw ak xam-xam des na la tontu xam-xam mais ku ñëw réewnde ak xamadi danañ la jaay réewnde ak xamadi euh, bu fekkee moom dafa defee ne moo nu ëpp doole wala moo nu ëpp fit ah wala moo nu gën a moo nu ëpp euh, euh, dara lenn lenn loo xam ne war nañu ko mën a jaay mooy dox la te amul ñu koy digal ñu koy ñu koy jey ñu koy jey bis li koy dal bu ko dalee du leen gis waaw man dama sama émotion moom forte la mënu wax waaw euh, li wér daal mooy mayetuñu euh, nu mu tudd encore Cheikh Oumar Diagne ak ñi mel ne moom danaa ci waxaale sax euh, oustaz Alioune oustaz Omar Omar Sall ak Aliou Ndaw ak ñi mel ne moom mayetuñu leen ñu tudd tere seen tubaab bu ma rusuloon ñi fi nekk dana am lu ma wax kon mais mayetuñu leen ko soxlaatuñu seen soxla ñu wax seen seen lu baax soxla ñu wax ci leneen ñun ñu xam Serigne Touba judd ci màgg ci di am esprit critique di ay intellectuel Sëriñ Tuubaa doy ñu ñu des si soxlawuñ ko ñu si keneen jàmbur bu ñu si waxal doy na dara loolu doy nañu waaw suñu mënee manger ñu manger ñu suñu manger ci ñun nag la guerre déclarée. ba évêque yi nga xamante ne chrétiens yi sax dañ cee wax wax ju rafet moom lañ gis mu jël kàddoom gu ñaaw boobu ba tey bàyyiwul ñu koy wax ne ko bu fekkente ne day jaay affaire connaisseur ñun ñoo ko gën a nekk ay nandite ndakaaru bu dee day jaay bandi mën nañoo abbaat sunu bandi bandi gi nag dañ koo bàyyi woon dencoon ko fenn rek di am lu muy xaar su taxee ñu solaat sunu mbudd mbubbum banditisme dana jàmmarloog moom loolu suñ xaadim njaay dina ci ñëw ci kanam muy koo xam ne day bëgg a nax murid yi day génn attaqué sëñ Touba ñetti weer sëñ Muntaxa def jëf ju rafet mu génn di ko tagg loolu nand nañ ko mais nu koy wax ne ko mayetuñu ko sax mu wax ci sëñ Touba lu rafet moom ñun am nañ ñu ñu waxal ci sëñ Tuubaa lu rafet moom la ñu mayatul moom turu sëñ Tuubaa na ko ba ndax moom li mu ne ñun suñu la néew ci na bàyyi turu sëñ Tuubaa lu mu ko jaral jaral nañu ko barki démb nag sëñ Xaadim Bousso noo ngi leen di sant bu baax Bousso barki démb li xew xam na ko moom organe ba ñu ko fekk rus borom rajo ba nga xam ne livre bi mu a def muy Sidi Lamine fii la ko bindee ci Masaalikul Jinaan ñuy ñaan suñu borom dal leeram moo tax la waroon a xew xewul waaye ñi ngi wax presse su kooku yoonu murit la attaqué guerre même mayatuñu keneen képp koo xam ne sax tegati nga li ngay def ci réewande ba attaqué yoonu murit même boo demee ci sëñ Muntaxa mu baal la kuréelu du la Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah mbokk sénégalais yi di leen di leen bëggee di leen ñaanal sama gars ngeen partagé bu baax a baax a live bi ndax lii kat daf ñoo yitteel lool di waxtaan pour mi lay di la bëggee di la ñaanal ngeen partagé bu baax a baax baax a euh, Mor mbay fi may tàmbalee waxtaanam bi rek lenn rek la moy lu mu wax kon waxtaan wi kon nañ ci génne Serigne muntaha ñu nee même Serigne muntaha bu leen joxee ndigal ñom ñom dañuy bañ kon wane na ni dëggantaan ñi seen kuréel gi ab kurelu say say la buñ tek rek bo xamanteni si tek nañ ko ndax yu melni ni na fi. mooy kuréel gi nga mooy ànd sàmm doonal mag ñi yooyu ay sëriñ sax dañ cee bokkoon ay doomi soxna ñu naan ay doomi soxna jël ay sos teg ko ci ay doomu aadama dem ba Sénégal yëpp xam ne ñii ay sos la ay ay ay waxi kase la yoo xam dañ ko doon teg ci ay nit bu jël sosal ci ay nit naan nit yi dañ leen a fay yónni leen pour lu wute jàngale mag ñeeg yooyu sama gaa yi ngeen partagé bu baax waxtaan wi nag waxtaanuma pour lu jëm ci kuréel comme ne dafa jëm ci tarixa wala ci dara mais dafay dem ci ay jëmm yaakaar naa ne jëmm jii di Mor Mbaye kenn dootu ko présenté ci Sénégal mooy kan yaakaar naa ni son bi waa GPP yaakaar naa waa GPP xaw ma ñoom son bi ak euh, ak kii ak nu mu tuddati ak euh, keneen kooku xam nga def nañ ci def nañ ci waxtaan ba jël defal ko benn kii quoi defal ko benn di wane waxam yi woro yi def ko vaar ci élection yi comme ñëw tàngal dëkk fii yuuxu xam nga Euh, euh, kii Macky Sall bu kii dëkk bi dinañ kii affaire yooyu après waa GGB ok xam nga waa dëkk bi bu nu kiiwul bu nu bunu nu bu nu kiiwul dinañ jóg defanteeg ak Macky Sall mu jogaat di baaluwaat àq maa ngi jë mel ni du moom ngeen xam ne façon nit yi kon maanaam lu dul yàpp sénégalais yi maanaam nekkuñ ci ndax duma ko defal du ma leen defal benn live kii nii yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko xam ni. maanaam business man la quoi nekkul affaire yoonu murit wala pour wax ay sëñ Tuubaa wala pour wax leneen ñii dara lañ gëmul pour loolu askan wi ñu bàyyi ci seen xel quoi ñu xam ne ñii duñ ay nitu dara gëmuñu dara ceddo murit yaakaar naa tamit moom it kenn du ko présenté moom mooy kan. léegi man fi may ñëw mooy lan ñoom benn ci seen wax yi nga xam si ñu ngi koy wax ne après dinaa ñëw ci Cheikh Oumar Diagne li tax ñoom ñu ñëw di tàngal dëkk mbokk sénégalais yi xam ngeen lan la leen xamal. classe gu mel nii yéen muriti si faay leen ñu mel ni ceddo murit damay indi seeni vidéo teg ndax ceddo ceddo lim fi wax ci tojaange ak lim fi wax ci waxi rëy ñii lislaam taxu leen jóg ta danoo yàpp askan wi Macky Sall moo leen yónni ñii système bi moo leen yónni ndax instant bi senegal guddi yim toll képp kuy jullit wala kuy nitu di yaakaar naa war nga wax ci góor jigéen yaakaar naa ni góor jigéen ñi ni di lëmbee senegal mu doon actualité nit ñi di wax ci góor jigéen yi fi mu toll nii xaw ma Saint-Louis xaw ma fan ci ban dëkk dëkk boobu noonu ñu ngi fay jàngal xale yi def examen boo xam pour examen góor jigéen pour examen boo xam ne pour wax comme pour dëgëral góor jigéen loo xam ne barki démb la kii dàmbooj wax ci waa Sàmbo ànd jikko yi di xeex xeex yu rafet xeexu silwise ci loo xam ne ci maanaam xeexal góor jigéen mais ñii amul lu ñuy toog di lëmbe sénégalais yi di fontoo sénégalais yi ci loo xam si ñi ngi ciy ñëw après teg ko ñii lu dul fontoo sénégalais lu dul yàpp askan wi ak bëgg taal dëkk bi maanaam bugguñu ko te ñii kenn waru leen fekk si yii nag ñii dañu war a wax ak ñoom ba pare ñii dañ leen war a plainte ñoom nee nañ ñoo plainte Cheikh Omar Diagne léegi ñu ñëw continuer vidéo bi non balaa may continuer sax dinaa eggale fenn ceddo wax na fi wax ju rëy boo xamante si ne kii diw sàngam yàlla la piir wax wax yoo xam ne diw sàngam moom wax waxloowu ko ko diw sàngam waxu ko ay waxi boppam ay waxi naqa sànd yoo xam ne lu fi ceddo def ceddo defal naa ko lu tolloog ñetti live dellu ci live bi moom li ma ko defal live dama ko def defal naa ko ay live yu baree bari ceddo xam ngeen lan la ma tontoo man samay live ma toog fii benn bis di live di wax ci sama affaire Afrique affaire kii yooyu sama soxna ñëw ma mer ma yuuxu soxna si loolu la jël def ko ci Facebook am xam ngeen ni kooku ñàkki argument moo tax muy jël ay sabotage def ko jàpp ne loolu tuutal nit la ceddo moom yaakaar naa ne ñëpp xam nañ ko ceddo murit ñooñu ay businessman lan ñooñu liggéeyaluñu Sëriñ Tuubaa ñooñu danoo nekkul sax ci ay affaire man waxee ma ci côté tarixa côté gëm-gëm mais comme ñi gëm comme taalibe yi nga xam gëm nañ naan danoo gëm Sëriñ Tuubaa ñoom ceddo bokkuñ ci ay businessman lan ay waxkatu lu dul dëgg lan ndax toog di waxal nit lu amut di sosal ay doomu aadama ci loo xam ni dafa leer ci loo xam ni vidéo yaa fi bu doon loo xam ni video yi nekk fi wala nit ñi xamuñu lu kiy wax mais lii yàpp askan wi ñii ban lislaam lan xeexal beneen bi mais ay nit bu ñuy jóg di xeexal lislaam mais lan moo tax góor jigéen ñi taxaw am na sëriñ boo xam ne dégg naa ñu ne wax na ci mais lan la ñuy toogee affaire góor jigéen taxaw sëñ Muntaxa signé ci pétition bi sëñ bay Sy Mansour sëñee ci pétition bi sénégalais yi di xeex ak yelleef ak góor jigéen ci instant bi ngeen indi ñu waxe Cheikh Omar Diagne ñëw di am loo xam ni loo leen ci jéem a teg ba pare sëñ ba nee na dégluwu ko ndax lii heure boo demee ba jóg rek yow du lislaam moo la tax a jóg du yàlla moo la tax a jóg du yenent moo la tax a jóg yow lii la tax a jóg mooy sa maam mooy lu la tax a jóg mooy défendre ay caaxaan ci loo xam ni dara du ci dëgg ndax lii yàpp sénégalais ya yàpp askan wi lii dara yi di def nii lii du dara ay fowee askan wi la léegi benn ngeen xool ceddo dégguñu ko ci waa ànd sàmm jikko yi moor baay dégguñu ko ci waa ànd sàmm jikko yi ci xeex góor jigéen boobu ba léegi dégguñu leen ñu dé ngeen déglu yéen sénégalais yi ñu déggatal leen ci li nga xam si looloo tax ñu dégg leen muy waxi Cheikh Omar Diagne Cheikh Omar Diagne ci wax ju ndaw jooju mu wax noonu loolu moom moo tax tey ñoom ñu jóg te ñoom waxu Cheikh Omar Diagne googee ceddo wax na loo xamante ni si Cheikh Omar Diagne xaaju ko ba kay bu doon dëkk l'islam dañuy rey ceddo bu fekkoonte ne dëkk bi àttoo sariya ceddo li mu wax ci ay waxi tojaange waxi bon waxi ñàkk kersa jëmale ko ci yàlla borom bi subhaanahu wa kon yàlla taxu leen xeex l'islam taxu leen xeex boole ko seen tarixa yi yónnuwu leen pour ngeen génn ci yoonu mu murid daal pour affaire bi leer pour combat bi yomb pour nit ñi xam ñu bañ cee sori te xam ni gis ngeen ay lu dul dëgg du dem du dem kanam te nit ñi dañuy wax dëgg de beneen bi léegi Xaadim Njaay moo ci nekk ak ceddo ak Mor ñun ñëpp xam na leen ak beneen waay dinaa dinaa ñëwaat ci moom mais léegi man Khadim Ndiaye mbërum làmb la Khadim Ndiaye xaw ma dafa dof xaw ma ko dal xaw ma tukkati yàmbaa la xaw ko dal Khadim Ndiaye benn Khadim Ndiaye mi nga xam ne day ngemb def futteeku yaramu neen ngemb jël ay saafara diwoo dof dof lu yaramu neen ndax Serigne Touba moo la jàngal loolu ndax kii ndax Khadim Ndiaye idole la caaxaankat yooyu ñoo ñëw fekk ko mel ni Cheikh Omar jaañ doon kilifa di xeexal réewam di wax loo xam lu am solo la ci réew mi ñu ñëw di ñu indil affaire yi teg coowal góor jigéen gi nekk fi ñii lan la ñuy xeex ak kan moo leen yónni loolu mooy li nga xam ne lu jaral jënd la Sénégalais yi ñii bu ñu fontoo di ñu taadeel lii ku ko dugal ci ay ku ndax lii affaire jaxase la man ceddo live bi ma def ci moom nee naa leen ceddo avant lii di xew mu ceddo mooy nit ñi nga xamante si dañ leen di fay ñu ñëw pour jaxase askan wi ñii bu Sénégal tàkkee kalaasu ceddo kalaasu Mor Mbaay bi ñoom ñi ci bokk nii laa leen limee ci liste dellu leen Mor baay defal naa ko ay live Ceddo defal naa ko ay live ngeen dellu ci ngeen xool li xew tey ak li nga xam ne indi nañ ko ak li ne diina la ñuy xeexal ndax kuy xeexal diine góor jigéen ñu du la metti li xew kuy diine ndax affaire affaire kii bële nu tuddati affaire Israël bi am du mais ci ban combat ngi leen gis ci combat diine boole kook ñoom ñu naan day xeexal diine ñi gën a yàpp askan wi ñi dàq wax lu dul dëgg mooy ñoom ñi dakk wax lo xamni ni màbb na lislaam ak li ni wax yalla ak yantam seen vidéo wala ale tegal ngeen deglu seen wax ñom ngeen deglu waxu Cheikh Omar Diagne ba xam ñii ñan lan yàq lii nag doon na loo xamante ni nii comme ni ko euh, Abdoulaye Diouf Bichri waxee lii maa jàpp ne tey la tey dañ koy dakkal Abdoulaye Diop Bichri tamit dinañ leen indil ay vidéo am ngeen déglu moom it li nga xam si moom lay wax ci li nga xam ne loolu lay wax ci lislaam li nga xam ne loolu la yàq yàq yàlla loolu la yàq yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak xeetu ñaawaay ci wax ñàkk teggin ñii xeexuñu lislaam xeexaluñ sëriñ Bamba xeexaluñ yoonu murit ñii ay saytaane la yu ñu yónni ñu ñëw créer seeni bagage bëgg ñoo génne ci combat góor jigéen yi ne xeex bëgg ñoo génne ci combat bi ñu yónni leen ne leen léba jëleen combat bi boo li ci dugalee affaire sentiment ngeen dugal ci affaire gëm-gëm léegi bu ngeen ko defee combat bi day tas léegi benn xeex am diggante ay murit ay ibaadu ay leneen ak leneen ñii ñuy yàpp askan wi la ñii ay nit yu bon lan ñii sénégalais yéen murit yi yéen a ay yéen a war a dem wax ak ñii yéen a war a dem wax ak ñii te ñii dañ leen war a porte plainte Omar Diagne leen wax leen porte plainte ñii buñ taal dëkk bi te buñ buñ fontoo nit ñi conférence de presse bu jëm ci wàllu bu offense Serigne Touba tey tey tey la war a dakk tey la war a dakk ñu réagir ah, tey lay jeex su fekkee nag su a jóg naa war nañ koo saafara yoon war naa am xamante ni nii képp koo xam ne offensé te nga dara ci diina ji wa rawata ñi nga xam ñu xool bala ëpp yow war nañ laaj offensé leen ci diine gi benn déglu leen seen wax yi ne leen li tax ñoom maanaam moo tax mooy offensé diine si ñoom du góor jigéen yi mooy offensé diine si ñoom du yàlla moo offensé diine ci ñoom ngeen déglu leen li naan mooy offensé diine ci li nga xam ne nee nan moo na seen soo bi moo waral seen combat bi moo waral seen jug ñaxti yi ceddo am na kii yim ci def yoo xam ne yëpp ma ko indi mais yooyu après dinaa si ñëwaat ñoom live al leen incha allah gën a yaatal live bi pa pa pa pa bi may def nii nii nii mais dinaa si ñëw gën leen a defal live di leen woo ngeen ñëw euh, teewe ko incha allah. gis wax ak yow loolu mooy yoon fekkee ne sàmm lu ñu yoon woowu nag ñun dañu ko sàmm suñu bopp loolu nag duñ ci jublu ba sàmm duñ ci ba dem ba suñu koo baal Cheikh Abdou Khadir mën na koo baal na ko baal waaye ñun duñ ko baal ñoom ñëpp répété nañ ko sëñ mën na koo baal Cheikh Bass Abdou Khadir mën na koo baal mais ñun mënuñu koo baal kon ñii kon du yoon murit ñoo leen yónni ñii kon ay kuréelu saytaane ren yoo xam ñoom ñoo taxaw ay booy wala Ghana wala lu mu ci mënta doon taxaw bëgg a taal dëkk bi ñu fay leen système bi fay leen pour combat góor jigéen ñi nga xam ne ñu ngi koy xeex ñu bëgg ko changer comme maître El Hadj Diouf ni ma ko déggee démb mu jékki-jékki génn wax benn tojaangeem pour nit ñi ñëw fàtte combat bi ñii benn la ñii ay nit yu fay lan ay nit yu fontoo nit ñi Cheikh Omar Diagne mënoo leen ci moom dara deful dara waxul dara loo xam ne lu ay la lii yàpp askan wi la pas loolu da ngeen a yàpp sénégalais yi quoi da ngeen di fontoo sénégalais yi bàyyi leen seen caaxaan yi nga xam ne yéen a koy def te lii nag gars yi dañ ci war a jóg ñëpp jóg ànd xeex ci ndax lii day taal dëkk de seen seen seen dof dof lii ñuy def nii. ñëpp la avancé ndax parce que bu ne Serigne ko jox ordre pour mu lii mooy problème bi déglu leen ko de déglu leen ko problème bi muy wax waxul problème góor jigéen ci li ne xeexal diine gi ak li nu jóg nii taxaw seen kuréel gi Mor Mbaye ak kii Bisri ak waa ji ak nu mu tuddati ak ceddo murit seen combat bi ngay dégg seen rëy làmmiñ gi ngay dégg lépp lii la mooy kàddu gi lii la ñii ñan lan yàpp ñu xool bala bala suñu réaction jël si wax ak yow loolu mooy yoon fekkee ne sàmm lu ñu yoon moom la ñu dañu sàmm suñu bopp ma sàmm duñ ci ma dem ba suñu Muntaxa mën na koo baal Seex Abdou Xaadir mën na koo baal keneen mën na ko baal ndax dafa avancé ñëpp la ndax ñun ñun suñu maam ànd na Serigne a parce que bu ne Serigne Touba tubaab bi ma ko jox ordre pour mu julli te benn waxul dëgg mu ne sëñ mu ne bu ne Cheikh Ahmad Tidiane euh, euh, kii nee na nee na Omar Diagne Cheikh Omar Diagne na sëñ Touba moo ne tubaab bi euh, maanaam sëñ Touba moo ko ne moo ko jox ordre naan ko bul bul kii wa bul kii woor ak wori moom waxul sëñ Touba Cheikh Omar Diagne dafa ne sëriñ si lim boole ci sëñ Touba Alaaji Malick boole ci ñun ni mu fi fekkee jamono mu ne jamono yooyu tubaab bi moo leen jox ordu moo leen jox moo leen moo leen doon jox ordre xaw ci telegram ndax maanaam weer wi jamono yooyu roppalaan mën na am wala leneen ak leneen mag ñi maanaam duñ xam li nga xamante ni si moo xew léegi ñoom ñu dem gis weer wi ñëw yëgal ko mag ñi bu leen ko yëgalee mag ñi wori mais loolu nekkul tuutal mag wala dara mais lii ay caaxaan dëgg la lii du lislaam lii du xeexu diine lii yëpp askan wi ak fontoo askan wi ak askan wi leen di seetaan di leen may lii quoi ndax lii dëgg-dëgg yabaate la ndax ñii xeexalun yàlla xeexalun diine te moomu ñu nag booy yii nekk fii di wax nii nekk fii di jaxase askan wi xool leen seen combat bi ak taqal nit ñi te lii mën na taal dëkk déglu leen waat bu baax li ko tax a xeex. loolu mooy

wax ji déglu leen ko de wax ji neena moo tax ñoom ñu def seen kuréel ba ngànd bi tudd ci ay tur lim ci ay tur te li ñuy wuutee li ñuy wax lépp xeetu njàngale mag bi mooy ay caaxaan daal contre mag ñi li ñu ko tudde mooy ay caaxaan lu mel nii mooy weeri feeñ na lii daal moo nar a taal Sénégal lii daal lañ bëgg a taalee Sénégal ñoom ñu continuer tuuti après mu andil leen léegi yeneen wax ngeen déglu ko. 5 yow Omar Diagne xam nga ma man xam naa la xam naa sa kër fekk nañ la ko gaay fekk nañ la fajiri nga daw li ci des nag mbéjum kanam borom a koy fajal boppam. macha allah mbéjum a koy fajal boppam doy na nag barki Serigne Touba Mbacke doy na maytuñ benn mbindeef mu yëkkati dara di ci yoonu Serigne Touba. kii di Omar Diagne nag bi mbir amee. waa gis ngeen Xaadim Njaay mbër mbërum làmb Xaadim Njaay mi nga xam ne moom mooy futteeku yaramu neen def ngemb takk ngemb. ñu teggal ko mu ba ki tiaxan kat caaxaankat jaay tiaxan kat mom xepo ay so koku noonu mo tok tay ñew tay ne da fay xex tay ay ay fay ñew pour xex veuleur pour xeexal diine neena limi xexale diine moy kàddu gi Cheikh Omar Diagne wax kàddu gi nga xam ci mo ngeen deg ñii ñan lan yàpp ñii ñan lan yàpp ñii ñan ni fowé joko na ma ku ñu wax mbay babakar Mbuub ci téléphone ne ko nak deg naan da ngeen di euh, euh, da ngeen di xex ak ak yelef àq ak yelleef nag dara gënu ci yow gënu ci wér xeexal ko Serigne Touba ne ko nag kooku ñuy wax ngóor soosu jaañ li mu wax nee nañ la xaritam nga ci tele laa koy waxee jot naa la téléphone envoyé naa la audio envoyé naa la li mu wax dans quelques minutes après ci la ma moom Omar Diagne woo ni ma dégg naa li ngeen wax ma ne ko yow Omar Diagne ngóor soosu Diagne nee naa la yow bàyyeeguñ la te ñi ngi ci sa kaw wax naa la ko ngay dégg téléphone jot nga ma téléphone wax naa la ko gannaaw boobu nag ci turu xadaamul xadim def nañ li ñu war a def ndax réew miñ nekk réewum droit la moo tax ñu porté plainte euh, def nañ plainte jébbal nañ ko procureur de la république procureur yóbbu na plainte bi commissariat jannatu woo nañ ma entendre nañ ne wax naa leen lu leer nee naa leen maytuñ kenn di wax ci yoonu murit wala ci Serigne Touba loo xam ni sëñ Muntaxa joxewul ndigal wala sëñ Bass waxal ko boppam wala keneen koo xam jox nañ ko ndigal mu wax moo xam télé bu man di doon moo xam presse bu man di doon jox nañ ñu këyit boo xam tam signé nañ ko sëriñ am instruction la waa léegi ñoom lii daal mooy seen combat léegi porte nañ plainte ci lii ne kenn warul wax ci yoonu murit loo xam ne lu kii la wala dara ku ko kii ñu jëflante ak yow comme ñoom niñ ko waxee nii li wax ci yoonu murit bi muy wax naan ci Cheikh Oumar Diagne problème bi mooy li ngeen dégg jamono yu koor comme li nga xam ne muy kàddu googu mu wax léegi nag ngeen déglu tamit maanaam ñoom seen wax yi ñuy wax li nga xam ne ñu jëmale ko ci yàlla ak yonent bi kon yéen war nañ leen plainte ci turu ashhadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah war nañ leen plainte ci turu yàlla ci turu yab yàlla ak fawee yàlla borom bi subhanahu wa taala yàlla bindu bind moom ñu sàkk ñu bind asamaan si diine islam xeexoo leen ko te dégg di caaxaan te waxoo leen dëgg lii nag waxuma pour kaa yoonu murit li may wax maa ngi wax ak ñi nga xam ne ñoo taxaw ak ku ci mënta ànd ci combat yi nga xam ne muy combat naafeq combat fo yi ak yàpp sénégalais yi ñun affaire góor jigéen ñi dañ koy xeex mu métti ñu ñuy xeex ay ay valeur am do combat bi dem ba am doole ngeen bëgg a ñëw déshabiller nit ñi ci xeex ndax ñi ay awliya as seytaan la ñi ay seytaan moo leen yónni ngeen bëgg ñëw ci lu baax li nit ñi xeex ngeen bëgg indiwaat beneen coow boo xam ne yéen ko kere coow li fan ngeen ko teg ne Cheikh Oumar Diagne yi bu leen ñu fontoo yéen doo leen ay nitu l'islam ay ceddo yu bon ngeen ay nit ngeen yoo xam ne ay caaxaankat gëmoo leen Serigne Touba gëmoo leen yoonu murit ay businessman ngeen Sénégal bu tàkkee yéen a ko taal waxoon naa ko maanaam boo ko waxee nit ñi mën na jàpp ni nga ne yow danga nga wax kuréelu murit mais classe gu mel nii ñoo tax murit yi jóg leen ngeen xeex ak ñu mel nii sëriñ si jóg leen ngeen wax ak ñu mel nii ndax lii kat day taal dëkk bi dëkk bi ba mu bëggee tàkk dégg naa ba problème am fi sëñ Mountakha Mbacké dafa jóg ni xale yi toog leen pour dëkk bi bañ a tàkk lii moo gën a garaaw fuuf li nga xamante ni si maanaam moo amoon ndax lii ci affaire ngëm-ngëm la ñuy fawee nit ñi jaare ko ci sëriñ Touba di ñëw di fawee doomu aadama yi te kuréelu murit yónniwu leen sëriñ Touba yónni wu leen ay nit lan yoo xam ne ñu fay la ñu nekk fi di fawee askan wi ñii bu ñu tàrreel ñii buñ fawee askan wi xam ngeen ni ñii ay xeexu tappale dëgg lan yow ndax li ñu ñëw teg ko ne lii moo tax ñuy xeex mbokk sénégalais yi lii yàpp sénégalais yi la yàpp askan wi la ngeen dégluwaat leen ma delloo ko ginnaaw tuuti. xamante ni nii képp koo xam ne ñoo taxawal diina ji gis nga man Serigne Touba ci yoon wi ñu xool bala bala suñuy réaction di jóg ñuy yow waroon la jël ci wax ak yow loolu moy yoon fekkee na sàmm lu ñu yoon wo nag ñu dañu ko suñu bop loolu nag buñ ci déglu ba sàmm duñ ci ma dem ba suñu taxam mën na koo baal Cheikh Abdou Khadir man nako bal baal man nako ba ko ñun duñ ko bal ndax dafa avancer ñepp la avancer ndax ñun ñi suñu maam ànd Serigne Touba li liggé ci diina ji ñun lañu njëkk avancer parce que bu dee Serigne Touba touba bi mako jox ordre pour mu julli pour mu wor ba mu dox nee na bu dee Serigne Touba touba bi mako jox ordre pour mu wor pour mu dox li moy seen xex seen combat combat bi lepp lepp li ngeen di dégg ñi di wax seen combat bi seen show bi ànd ak mbëru làmb yor seeni caaxaan ak si nekk ci réseaux sociaux yi di ratatati lii la lii la du leneen loo xam ne lu dul lii la ndax lii du yàpp askan wi benn si Sëriñ Tuubaa la wax léegi ngeen déglu ngeen ñëw ngeen déglu li nga xam ni moom lan yàq yàlla borom bi subhaanahu wa taala mi bind Sëriñ Tuubaa xam ngeen lii ay caaxaan dëgg dëgg dëgg ak fo ak yàpp askan wi ak yàpp yoonu murit nag tekki ñii ñooy saaga yoonu murit ñii ñoo saagalu ñii ñooy tax ku wax dara ci murit kalaas gu mel nii ñoo tax nit ñi di wax kalaas gu mel nii ñoo tax li ni li nit ñi di wax ci murit yépp bu ñu waxee nit ñi di mer wala dara mais kalaas gii ngeen war a arrêté xam ne lii kat ay caaxaan la Cheikh Ahmadou Bamba nekkul woon ci lii quoi lii ay foo dëgg la ndax nan la ni mën a toogee di xeex ay àq valeur góor jigéen Cheikh Omar Diagne nekk ci seen mbokk murit boobu nekk ci ñeneen ñeneen nekk ci nit ñëpp di ko xeex ngeen ñëw si jamono ji koy ngeen ñëw di amer de sénégalais ci lii naan naan lii mooy seen combat. loolu tamit yaakaar naa ni na taxawee noo xamante ni nii képp koo xam ne offensé nga dara ci diina ji waaw xam ne ñu xool bala bala suñu réaction bi jóg ñu def lu ëpp yow war nañ laa jël si wax ak yow loolu mooy yoon fekkee ne sàmm lu ñu yoon woowu nag ñun dañu sàmm suñu bopp loolu nag duñ ci déglu ba sàmm duñ dem ba Sëriñ Muntaxa mën na koo baal Seex Abdu Xaadir mën na koo baal ko baal waaye ko baal ndax dafa avancé ñëpp la ndax ñu suñu maam ànd na Sëriñ Tuubaa di liggéey léegi fii dama leen bëgg a tegal li tax ñuy xeex seen combat bi yëpp lii la léegi ma tegal leen ñoom seeni wax Ceddo dinaa leen tegal ay waxam Mor Mbaye dinaa leen tegal ay waxam seen waxi tojaange waxi xamadi wax yàpp yàlla tuuteel borom bi subhaanahu wa taala yi nga xam ne wax nañ ko seen waxi seen wax yàpp lislaam dëggantaan maanaam kon ñun waa lislaam yéen dañ leen war a porte plainte yéen ci comme yabaate gi ngeen di def di leen xamal ni moomoo leen Sénégal benn dëgg yàlla gi kenn moomu ko dëgg yàlla gi dañ koy leeral di ko wax da ngeen di toog di caaxaane askan yi ñii gëmuñu sëñ Tuubaa gëmuñu kenn waxuma ak yoonu murit mais kuréelu saytaane bandi yi waa waa awliyaa seytaan yi ñi nga xam si ay nit yu bon lan yu yées du pétrole bu leen saf du gaz bu leen du góor jigéen bu leen saf du lenn lu leen saf ci diine l'islam xam ngeen ni lii ay xeexu fen la amut lenn lu leen saf ci diine l'islam Sénégal fi mu toll tubaab bi bu ñu bëggee nax mi ngi ko bëgg a jaarale ci gëm-gëm ñoom ñu fay leen ci gëm-gëm yooyu bépp combat bu ñuy apporté ba combat bi am solo ñu ñëw indi coow coow lii lu tax ñu yëkkati ko nii du dara ay business la ñu fay leen ñoom mu dugg seen poos ñoom seen bopp du sëñ Muntaxa bu leen yoon yónni wax nañ ko leer na naa ñu ñëw du kenn ku leen yónni ñoom ñoo créé seen kuréel ñu système bi fay leen pour ñu ñëw dévier combat góor jigéen bi ngeen xool góor jigéen bi ni nga xam ne am nañ ko doole Sénégal ngeen xool Saint-Louis affaire bi nga xam ne jàllale nañ ko fa xaw ci Saint-Louis la xaw ma fan dinaa ci def live ndax wax joo xam ne wala sax dinaa ko teg xaaral sama teg ko mooy gën a mooy gën a kii balaa ma teg balaa ma kaa teg dinaa dinaa dinaa lii ba pare dafa am lu ma bëgg rek ngeen déglu li ñuy li leen tax a xeex nee nañ lii moo tax a xeex ngeen déglu ñoom seen i wax. tubaab bi ma ko jox ordre pour mu julli pour mu woor mbaa mu dog ba sëñ Mbàkke Bousso liggéey ci liggéey ci di liggéey boo xam ne ci la ci askan yëpp di sukkandiku fii ci Sénégal ci wàllu jàpp ak julleeg góor kon ñun dañ ko offensé kon ñun dañ ko baal tey dañ ko baal ëllëg lii nag na fi yam tey li des nag mooy ñu xool nañu demee këram nañu xool nañu demee këram li jënd ci yëf yi loolu moo des billaahi wallaahi boo ko defee dinañ fekk sa kër yow Omar Diagne xam nga ma man xam naa la xam naa sa kër fekk nañ la koro gaay fekk nañ la war fajiri nga daw li ci des nag béjum kanam borom a koy fajal boppam béjum kanam borom a koy fajal boppam doy na nag barki Serigne Touba Mbacke doy na mayatuñ benn mbindeef mu yëkkati dara di ko wax ci yoonu Serigne Touba. kii di Omar Diagne nag bi mbir yi amee jokkoo na ku ñuy wax Mbaye Babacar Mbow ci téléphone ne ko nag dégg naa ne euh, euh, da ngeen di xeex ak ak yelleef ak ak yelleef nag dara gënu ci yow gënu ci wér xeexal ko Serigne Touba ne ko nag kooku ñuy wax Ngor Soosu Diagne li mu wax nee nañ la xaritam nga ci télé laa koy waxee jot naa la téléphone am waaye naa la audio am waaye li mu wax. dans quelques minutes après ci la ma moom Omar jaañ woo ni ma dégg naa li ngeen wax ma ne ko yow Omar jaañ ngóor soosu Diagne nee naa la yow bàyyeeguñ la te ñi ngi ci sa kaw wax naa la ko ngay dégg téléphone jot nga ma téléphone wax naa la ko gannaaw boobu nag ci turu xadaamul xadim def nañ li ñu war a def ndax réew miñ nekk réewum droit la moo tax ñu porté plainte euh, def nañ plainte jébbal nañ ko procureur de la république procureur yóbbu nag plainte bi commissariat jannatu woo nañ ma entendre nañ ñu wax naa leen lu leer nee naa leen maytuñ kenn di wax ci yoonu murit wala ci sëriñ Touba loo xam ni sëñ Muntaxa joxewul ndigal wala sëñ Bass waxal ko boppam wala keneen koo xam jox nañ ko ndigal mu wax moo xam télé bu mu mën doon moo xam presse bu mu mën di doon jox nañ ñu këyit boo xam tam signé nañ ko Serigne am instruction la waaw leer na te loolu ñu ngi ci léegi nag danañ bàyyi yoon def liggéeyam ci li nga xam li ci war li ci nag mooy am na loo xam dees koy fajal suñu bopp ndax xam nañ ni réew mi euh, lu bari état bi ci dugg Serigne wax na ko léegi

ndax lii xeex diine l'islam moo tax a jóg après ma ñëw indi leen seeni vidéo defee émission wal fajiri ñun jokkoo nañ ak ñi ñu war a jokkal xam nga ni attaqué nañ la ko foofu ba commissaire bi ñëw na fi ñaan ni nañ la bàyyi euh, ndax ñu yàq benn presse ndax ñun jóguñu pour def violence wala ñu yàq wala ñu toj wala ñu def neen mais yow lañ amanteel yow lañ amanteel règlement de compte sëñ Tuubaa duudoo ci wax lu baax duudoo ci wax lu rafet mayetuñ la nga wax ci te loolu nag ni ko sëñ bi waxee mooy conférence de presse la doon ñun nag ñi ngi Dakar ñi béeguñ Tuubaa ñi ngi déglu parce que procédure bu gaaw lay doon plainte bi ñu déposé lu gaaw lay doon wala ñu fajal ko suñu bopp waaw ñi ngi la piste tamit dañ koy wax mu leer parce que du ñu la mayeeti dara nga di ko wax ci sëñ bi ak keneen ku doon fii nag ci Masaalikul lañ la ko waxee sëriñ bi nag jox nañu ay ndigal yoo xam duñu ko wax waaye képp koo xam ni daal yaakaar nga sëñ Tuubaa xamal ni tooñ nga ko te ñun danañ jàmmaarloo ak yow euh, lii mooy li nga xam ne laa ciy wax ne ko ñëpp bàyyi xel sëñ Tuubaa koo xam ni yow yow jot naa la nga ne nga wax waa sama gars yi yéen a déggandoo vidéo yi comme ñoom li ñu wax léegi xaar leen léegi ma am ay video yi nga xam si indil naa leen ko pour ñoom seeni wax ñoom ba xam ñii lislaam la ñuy xeexal wala lan ñii lan la ñuy xeex ay nit lañ yoo xam ne yu yónni lan ñuy foowee askan wi di ko jaarale ci turu Serigne Touba teg ci ñii ñoo yab Serigne Touba ñii ñoo yab yoonu murit ñii ñoom ñooy saboote ñooy saboote jël seeni caaxaan teg ko زوتر أكثر سنت من لا محمد المرتضى مكة ممسرين سيدي ممسي حب الأهر على لي براب رباتي دب دعما نوغي بنوغي دل سوات بغي على كدو يو حمني آه، لو دقل سنون تايل لون نور لا تايل مو كدو يو حمني <coughs> كدو يو دقل سنون دي كدو يو حمني موي لي دقل سنون خل نوغي واخ موي سيد دم موي si ahmadul xaddim nanu xam ne képp koo xam ne def nga ko yàlla ma nga xam ne xeeb nga borom tubaa mel nga ni fekk nga magum téeméeri at nga def ko gone ak fukki at ak ñaar képp koo xam ne def nga ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xeeb nga borom tubaa borom Touba du moroomam yàlla yàlla yàlla mii li muy rii rii rii borom Touba du moroomam du moroomam borom Touba ko dimbali borom Touba ko sàkk borom Touba ko borom lu mu am na ko sante borom Touba yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mu am ak lu mu xam ak ak ak nu ko sante sëñ Touba sëñ Touba ko dimbali waaw kon keneen kon keneen kon keneen <coughs> waxaale wuñ ko képp koo xam nag nga borom Touba am na ñoo xam ne sax ab sëriñ lañ jàppe sëñ Touba jàppe ko sëriñ am na ñoo xam ne baax lañ ko jàppe waaye képp koo xam ne daal jàppe nga borom Touba Euh, yenn ci yooyu wala nga jàppe ko am na ñoo xam ne sax am na ñoo xam ne sax euh, wëliw lañ ko def waaye yooyu yëpp ku ko def borom Tuubaa daal li wér na nañu xam ni ëpp na yàlla ëpp yonente bi te kenn la ci dul moromam te ku koy def ci yooyu benn bis dana ñëw nga xam ne borom Tuubaa ëpp na yooyu te kenn la ci dul te te ñooñu ñooñi ñoo ñooñi ma tudd <coughs> kenn la ci si Ahmadul Xadim du du du sa morom léegi rek ndax si tuba daa wax ne sajjada li jalaalu na xalxi aadama nuuril mustapha sil xalq ba ma yàlla su juutal man si ahmadul xadim booba bind boobu yàlla su juutal na ma njëkk ñuy bind min mindi te booba leeru yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tabbiwul ci aadama dellu waxaat ni yàlla min nan la ko def kun ba muy kun mi ngi sama tenq lii kon ko ko kon ku nit ki waaye gàtt-gàttu xam-xam xam nga ni nit li nekk ci tenqam sama lugu dellu waxaat ni yéen ñi ci sama wanag wii ak ña ca wanagu yàlla ñoo yam képp waaye man maa wuute yàlla kon mooy du ma moroomu yàlla kon ndegam du. xam nga kii waxam ji waxuma la ñàkk a teegantoo mais dem na ba tudd ci wanagu yàlla yàlla bi nu bind bi moom nit taxaw tudd wanagu yàlla wanagu yàlla yàlla bi bind yàlla ki nu moom mu ne wanagu yàlla ak waxam ji maanaam jaru sax jaaraat ndax bon lii ak waxu Cheikh Omar Diagne ak li nga xam ni wax na ko. loo xam ne mu ñëw fekk livre ñëw wax ko te dara lu aay nekk ci waxut leen lu garaaw manqué wul respecté kenn te tuddul Serigne Touba rek dafa tudd tudd ñeneen tudd na El Hadj Malick na ku nekk déggoo leen kenn ku yëngu mais ñii kuréel gii maanaam ay nit jóg ci ñoo xam ne di askanawoo ci yoonu murit du ma ne leen sax ay ay marit laa leen a tudde ay naafeq ay fokat ñëw bëgg ko jaarale ci turu Serigne Touba bëgg manipuler murit yi man moo tax may wax comme murit yi nani xaw a ànd ak seen xel ci côté li may wax du question pour dingat wala contre mais xam nga yii ñii seen caaxaan yi def nii léegi ñi ngi bëgg léegi pour yo pour yeneen murit yi ñëw ñu ànd dem ci kër Cheikh Omar Diagne toj ko wala kii ko dara di gis ngeen indi na Xaadim Ndiaye wax naa leen ko ay yoon indi nañ ku mel ni Xaadim Ndiaye indi nañ keneen ñoom ñu nekk mbooloo ne dañuy dem fajal seen bopp nguur bu ko fajul sax ñoom ñu dem fajal boppam dem nañ ba wal faj jëriñ ngeen dégg seen wax yi nga wax nañ ko ndax lii nite la ndax lii du ak yabaate

ku def yàlla sëriñ tubaa xeem nga borom tubaa na leer ku def yàlla borom tubaa xeem nga borom tubaa te ku xeem borom tubaa na bis boo dajee borom tubaa da nga xam ne xeem déglu ngeen audio bi ba pare ngeen xool léegi après ñu dégluwaat yeneen audio ndax dafa am yoo xam ne yu leen bëggoon dugal la ojo yi nekkate yoo sànniwuma ko sama téléphone bi quoi te ci bi laay laay fee mais damay defaat live si ñoom incha allah mais ngeen déglu ndax il faut que ma tegal leen kàddu ceddo do mourid sarif ci bopam mi nga xam neena mom da fay xex kom wax ji Cheikh Omar Diagne wax ne Cheikh Omar Diagne dafa manque respect Cheikh Amadou Bamba yeen yeena manque respect Cheikh Amadou Bamba ndax li ngeen wax ni Cheikh Amadou Bamba waxuko ben yeen yéen a koy sosal yéen a koy nga jël lu bon diko ko yonam bi te bokku ci ta mom nekul gawma ni mo wote li pour man li seeni xalaati bop la seeni caaxaan la yo xam yeen ko jël ak business ak bëgg alal mën ko bëgg ko jaarale ci ay nit bëgg a suttu luy taal dëkk lu bon lu yées ndax lii day taal dëkk li ngeen wax nii koo leen fi dóor day fayu lii day taal dëkk Cheikh Oumar Diagne bu ngeen demoon ba ne ngeen koy dóor day ah dina am ñu ko défendre man bu ma nekkoon Sénégal damay bokk ci ñuy défendre Cheikh Oumar Diagne wallaahi joxe sam bakkan xam nga kon taal dëkk la taal dëkk ci ay fen ngeen jaarale ko ci kan ci turu Cheikh Amadou Bamba di tooñ Cheikh Amadou Bamba di saboter Cheikh du Bamba moo tax kon ñii seen business yi arrête lépp ay politiciens fay leen nekk ci suuf fay leen ngeen ñëw du yoonu murit moo tax da ngeen bëgg a exploiter doomu aadama yi bëgg a taal dëkk bi nga xam ne Macky mii dëkk bi tàkk ak dëkk bi kii bu dee ay xam nga ne lii bu doon dëkk bu normal ba ngeen demee naa di ngeen ne pelente Omar Cheikh Madiane Diagne yéen leen di jàpp ne leen ràpp ci kasa bi xam ne yéen ay nit yu bon ngeen di ngeen ñëw pour taal dëkk bi pour jaxase askan wi ndax ban problème moo am ndax lii problème la ndax lii problème ba taal bi naan ay kii naan dem bu wal faj rek leen ne yéen arrête mais yéen da ngeen yàpp nit ñi lii moo tax ngeen bëgg a ñëw wal fajri ne da ngeen dóor Cheikh Oumar Diagne ba ngeen déggee turu day dóor Cheikh bay plainte ci dëkk bu normal ci dëkk bu baax ci dëkk boo xam ne am na njiit yu baax njiit bi waroon na leen ne arrête restauré leen tëj leen ci kaso bi ndax naroo leen jàmm doxoo leen jàmm ndax lii bu ngeen ci dooree nit da ngeen tooñ nit bu ngeen ci dooree nit xam nañ ñoom lu mu mën a jur mais ñoom ko njiit bi fa fexe nañ ko ci côté bi nekk ñi ngi naan ay rebelle Casamance ñi ngi jéem a fexe loo pour taal dëkk bi léegi ñu fay leen léegi ngeen ñëw jaarale ko ci turu sëñ sëñ di yàq deru sëñ Touba di yàq deru murit yow ceddo ak yow ñi mel ni yow ak moor Mbaay ñëw di fowee murit yi yi melu ñu ni yéen yéen ay dall ngeen ay mbalit ngeen yéen a ngi saboote yoon sëñ Touba yéen a ngi tooñ murit yi yéen lii moo tax nit ñi di yekk lu nekk yoonu murit te seen kalaas gu bon dii la ndax lii ku kii dañ naan murit yi fekk benn ceddo la ak benn Mor Mbaye ak benn ñi nga xam ne ñoo toog nii ak kuréelu seytaane bu taxawoon fan yële arrête dafa doy quoi seen caaxaan lu baax la lu baax la ndax ni mu demee mooy fii ni tey ñi alquran alquran ñi mu gënee salaabeer ñu la xasida gënee alquran waaye nag ñi al ñi xasida gënee alquran ñu la waxtaane Sëñ Tuubaa gën a loolu mu leen ci leen jàng ak waaye nag mën naa ngi ci biir xam war a loolu dañuy dellu tuuti ci ginnaaw ngir ñu xam ni waxtaani Sëriñ Tuubaa dafa doy waar ndax xasida dafa jóge ci sëñ bi di dem ca yàlla moo waral kon boo koy jàng dina yóbbu ci yàlla ndax Sëriñ Tuubaa dafa xool foo si laqlaa ni lillahi du dëgg kon li mu jógee sëñ bi di dem ca yàlla moo waral ñu ko yëkkati sama gars yi ngeen parce que sëñ bi di yokk te loo gën a bëgg sëñ bi rek di gën a jege sëñ bi te loolu leeraloon na am na lu ci leeraloon waa léegi léegi li ñu wax ci sëñ Touba exemple li Cheikh Omar Diagne comme comme waxul sax sëñ Touba xam nga ñoom ñoo bëgg a kii wax ni jël sëñ Touba rek alaaji Maalik sëñ Touba mag ñi mu lim ay turu mag ne mag yooyu seen jamono tubaab bi daf leen doon wax naan leen weer yu feeñ na ñu wori léegi pour mu benn la jullit yi waa léegi ngeen déglu kooku kii Cheikh Omar li mu wax ci Cheikh mu ne ñu ne loolu mooy tuutal Cheikh Omar Diagne léegi kii mën a toog kii mën a toog ne sëriñ bi moo gën yàlla kii mën a toog ne alxuraanu karim comme silabeer ni mu mel noonu la alxuraan mel silabeer moo gën alxuraan silabeer ni mu gënee alxuraan noonu la xasaayit gënee gënee noonu la xasaayit gënee alxuraan ndax loolu day tax na bi ma demee ba ni ma dikkee fépp wala lu ma romb naa bul fàtte Isa te loolu dara mel ni ko fekkee jotaay bu ñu waxtaan kon loola moo ëpp doole kon lu dul moom daal na nag Isa mu ne mu ne ko mbàkk mu ne ko fekke fu ñu waxtaane na sol dàlli weñ di dox ba mu jeex tàkk ngir fekk jotaay muy benn ñaaral ba mu tegalaat ko ci ne ko fépp fu ñu may waxtaane ña fa nekk tey seen dund dañ koy employés li ñuy wax ESOP dootul bokkoon ci seen dund bénéfice lay doon ci ñoom ba ñu noppi maa waxtaane su ko defee ñu door ko dolliwaat ci luñ dundoon nga xam ni kon kii fi bëgg a sax te faatu li muy def mooy waxtaane sëñ Tuubaa ak fekk jataayam du dëgg kon su ko defee kon ñu xam ni lii mur bu nekk la war te suñ saaka dafa waxoon ni nga la Muusaa bul fàtte waa jëfa Tuubaa moo la tee faatu moo la tee yalwaan na ko sam xel ne jàkk ndeem raw na say gët ngi lay gis sa daaw la boo ko fàttee mu fàtte fàttelu say mbir war nga foo toll kon foofu ko def waxtaan kon waxtaan Sëñ Tuubaa loolu mooy li am solo waaye nag dëgg dëgg waxtaan Sëñ Tuubaa nag la gaañu deful ndax heure boo ko defee képp ku ragal yàlla dina la mere ku bëgg moom ngi Rasulullah dina la mere lu leer laa wax ndax fii la maam Thierno Rafaat waxoon dani kii murit ak ci dul murit bu ñu waxtaanee nee na ba kenn ku nekk tàpp sa morom ku ne ree nee na am na ci ku dëgg ñu ne ko dëgg mu ne kay murit ndax nee na bu waxoon dëgg dëgg sëñ Tuubaa rek ku murit da koy mere ba duñ tàppante te fi nekk nii tey jotaay bu ñu toog ba ci màggal gu mag gi nag laa wax discours bi yëpp dañuy par ñoom Cheikh Tidiane kon waxuñu dëgg du dëgg bu waxoon dëgg rek ñëpp mer ku ñëw doon doo ñëw te ndax man wax sama waxtaan man tëggul ndëndëg seen miñ la certes foo ko mës a def ci rajo du ma ko fa defaat du ndax li ko waral mooy tey lii sawaay li tax takku rajo mooy waa ko jigéen ñoo ne ko lii mooy lan kon dëgg du neex du waaye dafa am loo xam si dañ ko bëgg a leeral ci diggante yàlla ak sëñ ndax xam tey bari na ñoo xam si dañ naan sëñ bi mooy yàlla déedéet doonu ko de sëñ bi du yàlla te yàlla bu baax yàlla ak sëñ bi ni ñu demee woon sëñ da koo bind ñu koy jàng set te bàyyiwuñ ci xel ndax yàlla dafa yor am marchandise am ci gàttal ci ngoon déglu leen mu ne yàlla ak sëñ bi maanaam sëñ bi du yàlla yàlla du sëñ bi ngeen déglu ko de comme li mu wax ne sëñ bi du yàlla ndax lii mooy respecté sëñ Tuubaa sëñ bi du yàlla yàlla du sëñ bi sëriñ bi moo bind yàlla dafa bind yàlla moo bind yàlla du moromu yàlla fee xool leen ñàkkal solo bi mu def yàlla benn ak wax ji nga Cheikh Oumar Diagne wax na ko tubaab maanaam mu leen doon jox maanaam di leen wax comme heure woor ak wari ci telegram tubaab bi daf koy yëg waa ñoom mën na xam la xew Niger dem fa moy ci ay ropalan wala lu meunta don ñëw wax leen ko li motax ñuy xex di tankal nit ñi di sonal nit ñi ne dañuy xex jaaré lako ko ci turu l'islam jaaré lako ko ci turu señ bi légui ngeen jël wax ji nga xam si wax nako wax ji nga xam si ki wax nako señ bi mo bind yalla xol leen ni mu minimiser yàlla te nee nan minimiser señ bi moy comme li nga xam ni manam wër feñ ñu nako wër feñ ngeen xol yi ca xam ngeen déglu ko mu eggale ba xam ñii lan moo leen taa xeex ba xam ñii ñun yàpp. di jaay marché bi nag six heures et demie ci ngoon lay tëj di jaay ba six heures bu des million lay mu jaay ko mu yendoo jaay suba ba six heures li mu jaay lépp rombul fanweeri junni. waaleykum salaam rombul junni. yàlla lay wax de. yàlla lay wax ak sëñ bi lay jël di teg yàlla marchandise am yor li mu jaay matul fan lépp marchandise am bi yàlla yëpp matul kiiwul fanweeri junni ki nga xam ni dafa yor lu dul jeex moom borom bi tabaaraka wa taala nee na marchandise am fan yàlla lay joxe misaal nii yàlla borom bi subhaanahu ki ñu bind saaka ñu moom ki lay jox misaal ak Serigne waaw. lii ñaata mu ne ko loolu soxla mu ne ko lépp saa calcul ne ah comme jaay naa fanweeri junni bu ma ko waxee million léegi ma dinaa bénéfice fanweeri junni mu ne ko million sëñ bi yëkkati milliard jox yàlla tiit dañ million laa wax mu ne ko milliard mu ne ko kon. yàlla tiit ba mu ne ko million laa wax mu ne ko milliard déglu ngeen de yàlla tiit sëñ bi mu ëppale yàlla daal sëñ bi mu ëppale yàlla yàlla tiit xool wii la xeetu ñàkk kersa ñàkk teggin ci diine lislaam ñii tey ñoo mën a wax lii ba pare jóg ne leen la ñuy xeex pour lii ndax wax gën na ñaaw lii lii di ngeen ko tëkkale waxu Cheikh Omar Diagne ñii pour ñu fontoo. léegi lépp jëlal lépp nga jël sama jëmm léegi yàlla daal jaay ko boppam daal jënd na yàlla daal. sëñ bi yàllaa ko defal lii loolu amul kenn defalu ko dara sëñ bi yàlla borom bi subhaana taala miy defar mi saaka bind moom di toppatoo àdduna bi yàlla bar bi yàlla defulu ko dara déglu leen ndax wax gën na ñaaw wax ji ndax lii di ngeen ko tëkkale ak wax Cheikh Omar Diagne bàyyi leen seen tappale yi te ngeen ragal yàlla bañ a taal dëkk bi nag lii nag waxee ma cadre yoonu murit mais di leen wax cadre caaxaankat yi ndax ci ay caaxaan ngeen bëgg di déglu ay waxu ñàkk teggin jëmale ko ci yàlla lii bu doon dëkk ak l'islam ñii lan war a porte plainte mais nekkul Cheikh Omar Diagne kii lan war a ci kaso ba tëj ko ràpp ci kaso ba mu dee ci kaso ba ak Thierno Mouride mi koy xeexal ak Mor mi koy xeexal ñoom ñëpp waxi mel nii ni la dimbalee suñuy wayjur yàlla ñu la dimbalee Muhammad Rasulullah lu leer nii la dimbalee yàlla nii waa léegi tubaab bi léegi dimbali nit ci ay weer moom ci ci gisum weer sëñ bi nii la dimbalee yàlla nii la dimbalee Muhammad Rasulullah bu leen fontoo nit ñi. sëñ bi nii la dimbalee yàlla nii la dimbalee muhammad rasulullah yéen a ko déggandoo de lii bàyyi leen seen tappale ak seen caaxaan ak seen ñeme yàlla déglu leen rek sëñ bi nii la dimbalee yàlla nii la dimbalee muhammad rasulullah sëriñ bi yegg si comme jaay naa fanweeri junni bu ma ko waxee million léegi ma dinaa bénéfice fanweeri junni mu ne ko million sëñ bi yëkkati milliard jox yàlla tiit dañ ko million laax mu ne ko milliard mu ne ko kon yàlla tiit yàlla tiit sëñ bi jënd yàlla yàlla tiit ba ne ko million yàlla jox ko boppam jël sama jëm sëñ ci wax de waqaaniyal baax gi suburaa tijaara ci dëdëy la suburaa danoon jaay mu jënd leen di baax kon sëñ bi yàllaa ko defal lii loolu amul kenn defalu ko dara barke Cheikh Ahmadou Khadi. ñun ñu la la bi ni la yalla ni la Muhammad Rasulullah Tuba. ngeen xamni jumtu kay weer mu meuna am dem gis weer wi muy tuba ba kum meunta ron mu dem gis weer wi ba gisee weer bi mu ñew xamal mag ñi weer wi kat feñ na Niger mën mën na yor jumtukaay yoo mag ñu yoruñu ko léegi mu dimbali leen ci loolu ci koor gi mu ñëw kat ne ah weer feeñ na ay ay mag nekk fi fii tijaan yi nekk fi ñu bare bari nekk fi amul ñu jóg lu dul ay quelques nit te heure bu jóg di am rek foofu lay jóge tamit loolu tamit kon dafa laajoon sëriñ si tamit ñu toog yar seen taalibe yi quoi pour ñu nekk nit ak seen waxi bon yi yu ñàkk teggi nii ku yàlla kii nga am iman ngëm yàlla wallahi lii day lii day day daggate sa xol man lii ni mu daggatee sama xol yàlla rek laa koy seedeel kon lii ak yabaate ak fola boo nangoo tey ñu mën a tudd tey sëñ bi ne sëñ bi moo dimbali yàlla ab tuba ak ki nga xam ne Cheikh Omar Diagne ne weer wi feeñ na weer wi ba muy feeñ sëriñ si dan ay tubaab ñoo leen doon wax waxee ko sens beneen sens sax pas yéen sens bi ngeen ko jëlee tourné ko pour taal dëkk bi pour taal Sénégal sens bu bon ngeen ko pour diaboliser te yéena ko tey te nit ñi dofuñu nekkul yoonay toog di xalaat nit ñi nit ñi xel lañ yor di xalaat nit ñi xel lan yor di xalaat ay malaat mental nit toog ñëw expliqué loolu di ko waxee ci pour ñu bennoo ci weer wi nañ bennoo ci côté bii ci wax bu rafet nañ bennoo pour julli ñi bennoo ñu woorandoo di joxe exemple ne mag ñi sax ñoom sax ñoom dañ doon woorandoo quoi di joxe exemple pour sëñ Touba Alaaji Malick jamono yooyu ñoom dañ doon woorandoo mag ñun fekkante di di bennoo ak julit sax nga wolu sa mbokum julit mu gis koor sa ne la gis na koor wer waye waaye ci bopam nga xamni ni day dem Niger meuna dem fenen gis fa wer wi mu ñew wax leen ko ñom ñu wori ci cause boobu kon mi ngi kay wax kon 50 ak sa mbokum julit kon wax la ko moom nga war ko wolu mom fofu lay waxe ngeen jël wax ji tëjee ko nu la neex wiireelu ko lu la neex ak seen waxi bon yi ngeen meuna dégg taxaw ne serigne bi mo dimbali yalla serigne bi mo bind yalla serigne bi yalla da ko ngeen mën a dégg lii lépp ngeen ma toog ba pare yéen ñeneen da ngeen ni xeex loolu doo leen ay nitu ay nit yu bon ceddo jaxase kat la mba Mor Mbaye jaxase kat la ba pare danoo fen ay fen yoo xam ne nga mën leen vaar teg seen fen ay nit yoo xam ne mësuñu toog di xeex valeur ñu tollu di xeex ci àq ak yelleef góor jigéen comme nit lii liy toogee di leen di leen di leen kii di di di saboote di wax wax yoo xam ne waxi ñaaw la nit ñi ñëw di ko xeex di xeex valeur yooyu ci jamono yooyu ngeen ñëw di ñu lii barke yàlla ñu doon yàpp sénégalais yi. na leer ku nekk ci ñun yow sa jëmmi bopp sa ndey sa baay sa doom ji nga jur ndax dégg nga ba sa sëriñ sa ndeyu sëriñ sa baayu sëriñ ah sa doomi sëriñ ñoom ñëpp ku nekk ñun am nga loolu xam nga ñoo ñii ñëpp suñ tubaab moo buddee seen gétt sawara yóbbu aljanna koo xalaat nag ca laa tàmbale ndax bu toppul suñ caa dem sawara suñ tubaab ko wax dogon topp ngeen na ko ci sawara ngeen jëpp léegi nag tàmbaleel nag koo yaakaar rek biñ biñ ñëwul suñ tubaab daal mbirum sawara la woon biñ ñëwul bi lu mucc waaw nag ki mu jël sa baay mu sa sëriñ mu ci ndey sa sëriñ ak sa kooku yow boo goree wax dëgg yàlla war ko mën a kennal. Eh, léegi nag te booba yàllaa ngi mucc bu dëgg fii loolu la gaañ xamul. ngi fi yonent bi daal léegi daal sëñ bi daal mooy muccalaate. ngeen deglu ko legi ñu ma delo len wat ci li nga xamanteni ci si ngeen wax and ak wax yëpp ngeen deglu ma delo la ñom ci ciow yi nga xam ñu ngi jog di ko coow te wax yi yëpp dekk ci seen biir wax yi boni ñaaw yi ñak teggin yalla ñak teggin muhammad sallallahu alayhi Wasallam, ñu ñew tok yëkkati seen kurel mën wax li dem naan dañuy porte plainte nit naan dañuy menace nit ci wax bi ba wa gendarmerie sax nangoo ñew ki seen ki ñi tal dekk bi lañ bëgg bëgg ko jaarale ci sentiment di fawee nit ñi ci ngëm-ngëm mbokk taalibe yi mbokk murit ñii defante leen ak ñi xam ne ñi ngi yàq deru Cheikh Ahmadou Bamba ñi ngi yàq deru murit ñi ngi wax lu bon lu yées di ko teg ci ci deru murit te lii nii ñii ay saay-saay lan yoo xam yu taxaw di ko kii lii moo tax nag maanaam nit ñi di wax ñu mel nii fekk ñi ngi ci yéen rek di wax nit ñi dinañ toog di wax ndax dof dof lu gin nekke ak yabaate ginu nekke wax dëgg yàlla ñu dëkk bi moomuñu réew mi nit ñi dinañ wax ak ñoom kon wax leen ak ñii ñu bañ a yàq der bañ a yàq seen der ñu naan yoon wi cim nii lan mel ngeen déglu ñeneen tamit kii tamit ñëwaat nee na Cheikh Omar Diagne lay indil problème moom it mi ngi nii ngeen déglu ko lii. dégg ngeen kii tamit wax na ko maanaam comme ku bañ sëñ bi ñu rey sa ndey rey sa baay rey sa ndijaay rey sa kii ci comme lan ci comme li Cheikh Omar Diagne wax ngeen dégg seen wax yi nga xamante ni maanaam ñii ñi ngi koy wax ngeen déglu seen wax ñaaw yi nga xam ne ñi ngi koy wax sama gaay ñi dunoo bëgg a taal Sénégal léegi ñu dellu si ci coow li ak video yi ma leen tegal yépp ngeen déglu ko ñu tëj ko dina si ñëwaat incha allah ndax laaj na ma tegal leen maanaam kan mooy ceddo murit wax yi nga xam ne si wax na ko ah kan mooy moor Mbaye wax yi nga xam ne wax na ko ñoom ñëpp ma tegal leen seen wax seen wax yi bon yu salte yéen wax ba pare naan daf am lu ñuy wax Omar Diagne bu fekkee ñoom arrêté wuñ sax laay wax ndax bu ñu arrêté ñun am na yeneen combat yoo xam ne da na a bëgg a jaxase suñu combat muy góor jigéen ñi góor jigéen ñi problème la. déglu leen lii nit ku am ngëm ndax doo xeex lii. bopp kuréel googu ñu tuddee ànd sàmm jikko yi kàddu yi may yëkkati nag maa ngi ko jagleel Sénégal yépp mais ma beral ci loxo nag ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekat yi te ñooñu ma ci gën a bàyyi xel ñi nga xam ne ñoom ñooy jàngalekatu anglais yi nga xam ne ñoo nekk ci Tëngéej ci inspection d' bi nga xam ne ci département Tëngéej la ñu nekk may wax ni coow li nga xam ne moom moo jóg ci àdduna bi te laal Sénégal ba tax dimanche yi nu génn ñu def rassemblement bu mag ca place de l'obélisque dajale fa Sénégalais yi yu jóge ci boor bu ne te it ñu def ko ci région yu bari pour taxaw ni nañu xeex pour góor jigéen gi mu lawal sunu réew bañ a jàll ñu fexe it ba bu sunu pétition bii nga xam ni sénégalais yi ñu ngi koy signé te ñu am ci ndigal ci ndigalu sunu xarit généraux yépp nga xam ne signé nañ ko ñoom wane ni góor jigéen méngoowul ak suñu diine méngoowul ak sunu aada méngoowul ak sunu cosaan ñu fexe ba ñu xeex ko ba du law ci sunu réew jaarale ko ci nag ab loi boo xam ne moom lañu nëbët pour jox ko assemblée nationale pour ñu voteel ñu ko pour tere lépp luy ngóor jigéen fii ci Sénégal ñu am ci ndam lu rëy nag ndaxte rassemblement bi ay junni junni nit ñoo fa ba tax sax ca bitim réew am ay góor jigéen yu mel ni ñooñu nekk ca France taxaw di jël ay nit ñoo xam ni fii Sénégal ñoo xam ni mënees na ci lim suñuy xalif généraux nga xam ni ñoom ñoom rek lañ ak ay nit ñu ñoo xam ni nit ñu nu naw lañ ñu lim leen sax ba ni dootuñu ñëw France muy ndam lu rëy parce que ñàkk dem France nga xam ne ku ne xam na France affaire diine loolu moom mënul nekk lu dul mbégte ci ñi nga xam ne ñoom lañ fa lim waaye nag fii ci Sénégal dafa am loo xam ne bi ñu ci songee ci weer yee ca ginnaaw ñu doon fexe ñoom waa UNESCO ni ñu dugale njàngum góor jigéen ci école Sénégal te mu andi woon coow Sénégal yëpp naqarlu ko ba ñu ngank njàng mi ba président de la république taxaw ne bu dee alal moo tax ñu bëgg ñu koo imposé nan jël seen alal ñu dem ngi gis ni ngi jaar ci porox ndong yeneen di teg bi pour mën a def loolu nga xam ni moom la UNESCO bëgg mooy dugal njàngum góor jigéen ci njàngum Sénégal bu ko defee yàq suñu askan comme yàq askan ya nga xam ni moo am ci Europe ak ci États-Unis kon nag li ci andi ci ay mooy fan yi ku ne gis na ni ay lëg yu bari ñu ngi koy def ci département yu bari mënees na ci lim département Vélingara wala département Kaffrine wala département Fatick euh, ak ñu mel ne ñoom euh, ñu fay woote ay lël yoo xam ne dañuy wax ne dañuy xeex euh, fitna yi ñuy teg ñi nga xam ni ñoom ñoo am gis-gis bu wuute ci lu jëm ci mbirum genre genre nag li ko lal di ak nguur jigéen bu leer nañ boo xam ni dañuy fexe ba ku ci nekk li nga bëgg a doon même fekkee góor nga nga jàpp ni yow da ngaa war nekk jigéen ñu bàyyi la nga nekk euh, nga dox doxin doxal nga dox dox jigéen wala nga mm, am taxawaayu jigéen seeg jigéen na yow bu dee góor nga tamit te nga am euh, euh, sañ-sañ ci sa pop nga mën a dem sa yëg góor na yow te ka nga xam ne yow même boo nekkul loolu taxu nekk nga bañ koo ŋañ parce que ŋañ boobu ñuy ŋañ ñi nga xam dañoo nekk ay góor jigéen loolu lañu tudde ni fitna lañ yee mooy violence basée sur le genre loolu nag ñu ngi koy lawal di def seeni séminaire muy wane ni kon lañ doon wax ne ñoom bëgg ñëw dugal njàngum góor jigéen ñu ngi ci waaye danoo jaar ci yeneen toox ndoll pour jéem koo jàllale bi nga xam ne nag euh, démb moo fës ci Sénégal moo metti jàngalekat yu bari ci sénégalais yu bari walla en tout cas li ëpp ci sénégalais yi mooy dañoo gis ci inspection académie bu Tëngéej bu Rufisque euh, ñu def benn examen blanc maanaam doon ab examen bu ñuy jox euh, xale yi bu ñuy defal xale yi nga xam ñoo nekk terminal bi ci classe terminal euh, déglu leen de déglu leen di Sénégal la xëyee fi mu toll si njàng bi mu doon problème ci affaire góor jigéen bi déglu leen dàmbooj loolu lay leeral ngeen déglu ko bu baax ngeen partagé ko après ñun ñu def ci tuuti yaatal sax bu ndaw a ndaw ndax euh, lii dañ ci bëggoon def live mais li nu gis nii maanaam ñu gis ni lii dafa jar arrêté quoi comme li ma dégg gis ko nii di leen wan itam ñii ñu dara xeex amul lu leen métti ci Sénégal ndax xeex bi nga xam ne ñu ngi koy mëne ci xeexu góor jigéen dem ba tollu fii ñu fay leen léegi ne leen kaay ngeen changé combat bi dugal ci combat bi ay combat tarixa ay combat diine féewale askan wi jaxasee nit ñi ñëw fenal ay nit pour léegi changé combat bi ñu gouvernement jàppale leen ci ñu fay leen ci ay xaalis ñii loolu lañ fi nekkee boole ko di ko jaarale ci turu Serigne Touba di fontoo yoonu murid di fontoo Serigne Touba di fowee Serigne Touba ñii ay caaxaankat lan ay nit yu bon la nit yu yées lañ ñi du nit dara ñu nekkul ay nit yoo xam ni ay kii loon Sénégal ñu jar arrêté lan nag. pour waajal examen xam ne moom la ñu def ci baccalauréat examen boobu ñu doon def nag ci Rufisque lañ fa def ci benn épreuve bu ñu tuddee épreuve bu anglais ca def euh, benn texte boo xam ni day kañ ki nga xam ne dafa nekk góor jigéen di fésal ay baax baaxi góor jigéen di wane ni képp ku ŋàññi góor jigéen naa fekk nga di wane ni góor jigéen lu baax la ndaxte dalay gën a yokk bànneex te yaa moom sa bopp kenn warulaa ŋàññ ci loolu te gis ni sax boo nekkee góor jigéen ci ngay gën a mën a euh, euh, jëm ca kanam ndaxte ci ngay mën a gën a am ay jéego déglu leen de examen la boo xam ne ñu koy def muy jongante muy jongante boo xamante ni si mooy examen jongante boo xam ne ñu ngi koy def gis ngeen ci bërëb yi mu ko lim ci senegal ci góor jigéen ñuy dë dëgëral góor jigéen ba pare bu fekkee sëriñ si ngeen xeexal nee seen sëriñ si kon ay naa naafeq la ñoom ñi nga xam ne dañuy xeex góor jigéen est-ce que dugg nañu ci seen bopp yi ci dignité ci li nga xam ne lu ñuy xeex lu jar a xeex la. ci li nga xam ne lii la sëriñ wala xeex muy lu bon sëñ bay si maasu di ko xeex sëñ Muntaxa di ko xeex ñenn ak di ko xeex ñii lii leen dugal ci réew mi tey léegi ñoom ñu fay ay nit bëgg ko jaarale waat ci turu Serigne Touba bëgg ko jaarale ci turu sentiment ndax côté ngëm-ngëm di foowee nit ñi pour changer combat bi. pour changer combat bi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy xeex pour lëndëmal combat bi lii la ci gouvernement jublu lu ci nit ñi bon léegi ñu jaar ko jaarale ko ci yoon wi seen ñii booy boo ngeen jóg ci ñii bu baax a baax xam ni taal Sénégal lañ bëgg. duñ ay yu baax du xeexaluñ benn sa sëriñ Tuubaa xeexuñu ci yoonu murit ñoom ñuy fay lan ñuy lijjanti seen bopp bëgg a fawee gars yi taalibe yeewu leen te euh, combat góor jigéen bi ñu continuer ko bu baax a baax bu ñu kenn tardé ci suñ combat bi loolu ko tamit ci exercice yan joxe wane ñoom dañuy kañ góor jigéen dañuy rafetlu góor jigéen parce que ngóor jigéen bunul te ñëpp ñu koy ŋàññi ñoon du ñu nit ñu baax te képp ku ci nekk yaa ngi ci yoonu jëm ci lu baax lii muy lu garaaw a garaaw a garaaw loo xam ni inspecteur bi ko def tey waru woon a continuer di nekk ba inspecteur ca ca ca ca académie ba ndaxte yàggul ca biñoo na biñ fi tuddee ab euh, tur candidat ab élection dañoo jël ay mesures rapidement daal di sanctionné ay proviseur ak ay censeur ni ñoom waruñu mën a dugal aw tur kese ci biir ay feuilles examen beneen bi mooy barki Dembo Ndiaye également lii xewoon Sénégal ba jur fukki nit ak ñeent dee ci euh, bañ bañ ba ba ko ab euh, académie ca Matam defee ci ab euh, ci ab évaluation dañoo daal di jël ay mesures daal di sanctionné ñi nga xam ne ñoom ñoo defoon loolu te pourtant ñooñu defuñu lu dul. wane rek li xawoon ci xeex yi nan la deme woon ak ñaata nit a ca dee ak li nga xam ne moom moo ko kon nag tey lu mel nii bu amee nga xam ne dañuy dugg ci ngëm-ngëm nit nga xam ne sax ñu ngi ciy ŋàññi suñuy kilifa diine ak suñuy xalif généro ci xeex bi ñuy xeex pour ngóor jigéen ba a law ci suñu askan kooku ki ko def di dem di ko jox ay ndongo yu nekk terminal pour di leen ca natt pour ñu leen di wan kon ñii kon seytaan moo leen yoon mu leer naññ ndax dégg ngeen xeexu noobal bii muy xeexu góor jigéen sëriñ si signé ci petition bi sëñ Baye Sy Mansour wax ci ban tere ko France tere ko ne ko ne dootu fa ñëwati yéen yéen dégg lii lépp nit ñi di ko xeex mu doon combat boo xam ni mës mësuñoo benn yee nii moo tax combat bi ñu ne ko ba président sañu def yenn yi ndax amul dooleem lii bu ko tere woon maanaam li xewoon jamono yële lu ko raw mooy xewaatoon bii paa bu ne woon kii bii du am doxum ñaxtu bii ndax sëriñ sëpp ci ànd ñëpp ànd ci mu yi tijaan ibaadu xaadir chrétien ñëpp ànd di xeexandoo lu baax ci jamono ji nit ñi di xeex xeex bu baax ci boobu la Thierno Moulé Sarr jóg ci boobu la Mbaye Baye jóg ci boobu la ker moor Baye jóg ci boobu la maanaam seen kuréelu saytaane googu jóg ànd ak mbërum làmb Xaadim Njaay ay nit ñàkk dignité maanaam jóg ngeen taxaw naan tey da ngeen di jéem a kereel ay Cheikh Oumar Diagne ci comme wax ji nga wax na ko ngeen dégg wax ji ndax li wax gën na ko yées liñ dugal ci école ap ap ki ci ak la ki di wax xaadim ki ci ap weer lay wax ci ki ci ap weer lay wax ki ñi nak ñom ci école bi lañ ko dugal ni seen sëriñ si ci bopam li di xex ni ay naa lan li nit ci di xex kep ku bax muy man ak kenen ak kenen ñun ñi xex ñëpp goor jigen ay naa lan ay nit ci bon lan taxu leen jog l'islam taxu leen xex Macky Sall mo leen yoni gouvernement mo leen yoni di leen wax lo pour rek ngeen desag ngeen fexé ba nit ñi féewaloo fexé ba andi problème maanaam ensemble bi boole bi ñu def rassemblement bi ñu def ñun ñëpp di xeex góor jigéen di ko xeex mu nar a am doole ngeen ñëw pour déjà xaw ma pour jéem a changer suñu combat pour yàq suñu combat ànd féewaloo suñu dëkk yéen ay saytaane ngeen ay nitu saytaane ngeen saytaane moo leen yónni ngeen ànd ak saytaan ay nitu saytaan chaque jour ni la ñuy def bu ñëwee ba fekk nit ñi di xeex nekk ca yoon ba saytaane moo leen yónni ngemb leen muy awliya ak saytaan maanaam ñu ñëw jaaree ko nag si sentiment nag. jaareel ko ci ay kàddu yoo xam ni naan Serigne Diouf la ñuy xeexal wala di fowe sentiment nit ñi Serigne Diouf bu fi nekkoon lii lay xeex seen Serigne si ngeen di wax noonu ñi ngi nii di xeex di xeex pour góor jigéen ñi te seen combat bi ngeen combat yi xam ngeen ni lii yabaate la ak yab askan wi gouvernement ànd ci sax mën a ñëw sax naan pour ngeen def ay plainte yéen war ngeen def plainte yeen ci weexu Cheikh Oumar Diagne bi naan da ngeen koy menace ñew ngeen ba ci kii ba gendarmerie arrêté len wala ben affaire ci lan ci wax ci mu wax ni xam ngeen ni kon dekk bi ci tal ko lan bëgg bëgg ñu délo ci mbum ak jam bëgg France bi nga xamne mom moy dogal ba naan dekkam kenn dafa dugg di jël suñu réew manam France bobu notaat ñu suñu dekk tak ñu tojante ay bop ñu rayante manam dekk bi ñu perte suñu sëriñ perte ñun ñëpp ñu and perte ndo Sénégal pour légui ngeen délo ci mbuumu jam kuy wër niti bon kuy wër yiti yées jàpp leen ci da mourid japp leen mbay baay ku leen bàyyi bàyyi nga seytaane bàyyi ngeen nit ko bon ñii ñu yiis lan ñii ñu bon lan ñii ñuy saboote yoonu Cheikh Amadou Bamba ñii ñuy taqal yoonu murit la lii taqal la salteel la génn leen ci ñii si seen yoon wi dégaase leen ci ba mu set ngir xam ñi ay saytaane rajim lan laaj bi sedd na kooku inspecteur d'académie moo nangu ci académie kooku naa ne war a ñoo beneen bi mooy war nañoo def enquête ci nu mu gën a gaawee pour xam kan moo proposé sujet boobu parce que jàngalekat bu proposé sujet boobu yow yàpp ñu yàpp bu metti ak jéem ñoo suufeel ñun jàngalekat yi ak jéem a xotti sunu dayoo ñun ak sunu taxawaay bi ñu war a am mooy aar sunu askan tàggat leen bañ jariñ seen bopp jariñ seen askan jariñ seen réew kooku kon jàpp naa ne mérité wul sax ñu koy woowe ab jàngalekat may wax nag jàngalekat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci euh, académie wu Rufisque mooy tënge ni nañ am fulla examen blanc boobu nga xam ne dañ koo jox xale yi di kañ góor jigéen nañ fexe ba ñoom ñëpp nañ boycotté correction bi bu ko kenn corrigé nañ taxaw am seen fulla am seen fayda wan inspecteur bi ak ki nga xam ne moo proposé sujet boobu que ñoom yëfu salte yii kenn du leen ci boole te ñu leen di xamal àdduna bi lépp lu fi nit def muy muy lu baax muy lu bon dina dem jàkkaarloo yàlla subhanahu wa taala rendre compte te dara jaru fi ngay jaay sa ngor dara jaru jaru fi ngay tilimal sa sa sa sa bopp dara jaru fi ngay yàq sa diine te lii comme ni ko ñëpp xamee li yàlla subhanahu wa taala gën a bañ gën a sit ci àdduna la mooy ngóor jigéen kon nag jàngalekat yi li ma leen di ñaax mooy examen blanc boobu ñu def ci Rufisque def ci jéeg ju ñaaw ji bu ko benn professeur u anglais corrigé parce que man xool naa sujet bi professeur u anglais laa gis naa niñ ko defee muy lu ñaawa ñaawa loo xam ne ci sama carrière lu jàngalekat musuma gis lu ñaawee nii loo xam ne ab professeur jox na ko surtout muy professeur anglais nga xam ne man dafa bokk ak man discipline kon nag li ma leen di ñaax yeneen professeur anglais yi nga xam ñoo bokk ak moom académie bu Rufisque mooy bu leen ñaawal mukk seen seen def bu leen ma nit ñi ñu jaare ci yéen pour di dugal ngóor jigéen di eh, wane ni mosoon na am te ci Rufisque lañ njëkk amee kon bu leen nangu mukk mu jaare ci yéen kon fexe leen ba na ngeen jël seen matuwaay ba copie yooyu bu leen ko joxee bu leen ko corriger na ngeen exiger ñu defaraat beneen épreuve boo xam ne daañu ko teg ci yoon respecter programme sénégalais parce que ngóor jigéen dañ koy tere Sénégal parce que effectivement ba léegi nii suñ doon yàlla te kenn légalisé wu fi euh, ngóor jigéen Sénégal na déli lay am waaye dañoo bëgg ñu def ko léegi crime moo tax a ànd sàmm jikko jóg taxaw ànd ceeg kilifa diine yi ànd ceeg kilifa aada yi ànd ceeg ñi nga xam ñoo nekk ci diine islam ak ñu nekk ci jàngu bi képp kuy sénégalais nga taxaw ci loolu loolu ci lañ nekk kon maa ngi leen di sant di leen gërëm leen di wax ni mbéjum kanam borom moo koy fajal boppam kon na ngeen taxaw taxawaay bi ñuy xaar ci yéen mooy ngeen am fulla ak fayda taxaw temm ba kenn du leen def loo yëfu ñàkk fayda yi ak di jaarale nguur jigéen ci yéen pour mu law ci sunu askan parce que ba lawee ci école bi rek law na ci askan bi donc maa ngi la sénégalais yi di xeex muy ànd sàmm jikko yi ñu woote combat bu noobal man ba ma leen déggee rek ci laa carte membre bokk ba ma déggee nii kii nii ñëw lijjanti carte membre bokk Cheikh Omar Diagne di ko xeex Serigne Mountakha di ko xeex. señ bay ci Mansour di ko xeex Sénégal yëpp ànd muy murit bax yek muy tidiane bax baax yi képp koo am nga diñ bañ nga bëgg lolu bon ñu and di xex li ci dëkk bi ñu tollu fi manam ñu duggalal ñu ñu dara ñu duggalal ñu lu mel ni mu metti senegalay ki baangi ni xol ngi nii xool leen ki baa ngi nii bi ku bëgg dinañ ko duggal xamna ni après ci ki bi mi ngi ni manam pour ki bi bi nga xamni anglais lañ ko def manam ku ko bëgg jot ko ma tudd ko duggal ci passe bi yéen ñëpp di xeex lu mel ni tey ay ñoom Thierno Mouride ak ñeneen ñëw di ñu indil yeneen komba di ñu wax ay yeneen wax naan fi ñu toll nii dana war a taal dëkk bi nanu jóg xeex ah nañ ñëw ànd ak nit léegi ñu ut seen yat dóor ay nit ci lan ci wax bi nga xam ne Cheikh Oumar Diagne nee na weer yu ba muy feeñ maanaam tubaab bi moo doon wax naan sëriñ si ne leen weer yu feeñ na. góor jigéen ku nu xeex nit ñi toog fii góor jigéen ñi na leen fi jël góor jigéen ñi na leen rey góor jigéen na leen fi jëlee lu nekk amul loo leen toog naa da ngeen ciy rey nit rey ci ndeyam rey ci baayam rey ci nijaayam loolu ci ay comme comme li nga xamante ni wax na ko ci li nga xam ne wax na ko ci weeru koor wàllu koor pour dajale nit ñi lii fonto sénégalais yi génn def lii du sëriñ Muntaxa bu leen yónni du yoonu murit bu leen yónni ay seytaan ngeen ay nit yu bon ya di jaxase sénégalais yi ah youtube bi youtube bi effacé nañ kii bi ma bëggoon sànni sànniwaat xam naa ne ko motu ko ma sama live bi leen gis jàppoon seen kii bi dal na ak seen wàññiwaate bi moo tax ñu effacé ko mooy bi ma dugal noonu seen youtube bi effacé nañ ko ndax dama ko bëggoon tegaat mais téléchargé nañ ko téléchargé nañ ko pour wan ni jaxase di leen wax maanaam saay-saay yi caaxaankat yi ndax lii youtube bu ko partagé yow saytaane nga youtube seen youtube bu ko partagé doo nit ku baax ndax bëgg a taal dëkk bi danoo ruus danoo mi ngi nii effacé nañ ko danoo rus amuñu ci ndam ñoo ñu gën a dégg moo tax ñu effacé ko gis ngeen dindi nañ live bi ñii seenu youtube ba ko partagé yépp ay saytaane lañ dinañ ñëw maanaam tel dama ko wàcc vidéo ba pare ngeen xam loolu ngeen xam ni seen wax ji mi ngi fi seen wax yi lépp wax ceddo beeg wax ji ngeen wax yépp mi ngi fi ñu ngi ko denc ay saytaane yi bon ngeen muy seenu youtube bi wane lii si Sénégal toll fii ngeen war a wane lu baax Sénégal toll fii maanaam ñuy xeex góor jigéen seen sëriñ seeg nit ñu baax ñëpp ànd ci nitu diñ yëpp ànd ci yéen amul loo leen kii lu dul ñëw fekk as gor su mel ni Omar Diagne ngeen ñëw jël seen waxi bon jël ay waxam tourné ko muy waxee foo xam ni bëgg jullit ñi bennoo bëgg jullit ñi tey ñu mën a ànd ci lu mel nii nga xam ne lu song rek dinañ ko daan pour jullit ñi nekk ba Cheikh Omar Diagne yor ay kuréelam ay murit nekk ci ibaadu nekk ci tijaan nekk si ñëpp nekk ci ñëpp bokk bennoo di ànd di xeex li nga xam ne ay jikko di ànd di xeex li nga xam ne lu baax la amul loo leen di def loo leen def lu dul Cheikh Omar Diagne bëgg benn la jullit ñi di wax ci affaire koor naan koor gi kat nañ ko benn la ñun kat jullit ñi lu tax koor gi ñuy tàqalikoo nii ne même mag ñu baax ñi nga xam ne ñun nee nañ ci seen yoon lañ nekkoon su mag ñi baax ñi nga xam nee nañ ci seen ginnaaw dem mag ñi baax de ñoom de dañ doon bennoo di woorandoo benn yoon ñun lu tax ñun waruñu weerandoo benn yoon bay joxe exemple ne ñoom tubaab bi ci boppam da daan gis weer feneen ñëw ne leen weer wi kat gis nañ ko bu leen ko waxee ñoom seen bopp ñu woote ñoom ñëpp ñu woorandoo di wane seen benn ak seen assemblement mais seytaane bu mel ni Thierno Moule Sade saytaane bu mel ni Mbaye Mbaye saytaane bu mel ni seen kuréel googu yéen ñëpp xaw ma kan ri te ay waxi tojaanga rek ngeen di wax te yéen dégg naa seen i wax seen vidéo yoo xam dinañ ko teg waxi bon wax yiis wax yi féewale tuutal tarixa jàmbur tuutal sëriñu jàmbur tuutal bàyyi jàmbur jiy seen sëriñu yàlla wax-wax yi ëpp wax yi bokkaale yàlla wax yoo xam ne yéen li ngeen wax ni mu yéesee ci lislaam seen wax ni mu bonee seen wax ni ko yàlla bañee seen wax ni mu haraamee yu bon yow ceddo yéen ngeen mën a wax loolu wax lu mel noonu ba pare ñëw naan Cheikh Omar Diagne pour benn le ko maanaam yéen ngeen kii ko yéen seen wax mooy waxi féewale ak maam wàcce maamu jàmbur puus maamu jàmbur jéem a créer ay problème ci tarixa yi problème bu tarixa yi am Sénégal ceddo seen concert boobu yéen a ko teg mbokk sénégalais yeewu leen ñu ànd bennoo ànd xàccandoo dóorandoo ñu xeex ay dignité xeex nit ñu mel ni te xam ne yoon wu nekk danañ saboote yoon wa te lu nu wax yoon wa nag yéen a ndax bu ngeen leen seetaanee ñu mel ni ñuy wax di ko waxee ci turu kuréel bu mu mënta doon jàppale ni kon yéen a tooñ seen bopp salaamaaleykum wa rahmatullah